gis naa sa beneen waaye aussi. waaw Moussa pas parce que kii non faaw Pape Alé mi. da ngeen xam ne avant Ousmane Sonko ci kan la nekkoon. Khalifa Sall. Khalifa embauché woon jabar ji. 4-4 mhm. Kia bi jabar ji doon dawal Khalifa ko joxoon. Uh-huh. jamono boobu. Uh-huh. Ousmane Sonko bi mu ñëwee dafa visé ñi nga xam ne am nañ visibilité ci réseaux sociaux yi ñu ngi leen di suivre. Mhm. fa la alalam. Mhm. moo tax mu reculer ko moom bu vidéo bi paree nga jox ñu bu Pape Moussa Sow. Ousmane Sonko hier a coup spectaculaire, un coup chaos. Je pense qu'ils sont chaos. Parce que Hamatouniou, la suite des événements, hashtag 1. Donc, vidéo acte 1. Mhm. acte Acte 1, 2, acte 3, ces deux adversaires sont déjà couchés. Parce que Nénal, il a donné à sa carrière politique euh, une orientation de génie politique. Il a donné à ses adversaires un coup chaos. xamatuñu fan la Ousmane Sonko yi jëm mooy li ma waxoon que ni ñoom danoo toppoon cible comme Ousmane Sonko nekk ci deret deram bi di yàq nekk ci euh, justice di yàq lu ne ñu koy def dem ba jékki-jékki Ousmane Sonko dupliquer sa personnalité. Mm-hmm. maanaam mel ni chasseur buy dàq ji benn gibier rek. Mm-hmm. gibier bi dem ba ci biir multiplier wu léegi yow doo xamante kan moo ci Ousmane Sonko foo jëm. voilà ce qui s'est passé en réalité Ousmane Sonko nous avons foogoon que Ousmane Sonko Bopom les protéger Bopom le bëgg d'un président mais loulou, c'est ne pas même analyser avec froideur les phénomènes politiques Ousmane Sonko en 2022 il a battu campagne. Mhm. mais il n'était pas dans la liste. Ah Ousmane Sonko euh, il a quitté Ziguinchor pour battre campagne dans d'autres localités où il wa kon xamna ni ñoko ko déggandoo mon cher ami sama xarit Moussa Sow le juriste bi nga xamantene dafa indi woon bopam pour chroniqueur juriste manam lu jëm ci walu loi lu ñu comprendre mo xamal kaskan bi aujourd'hui pap Moussa Sow nena Ousmane Sonko dafa dupliquer bopam dupliquer xam nga mooy lan mooy ni dupliquer cassette nga yor ben CD nga arresté ko enregistré wat nena Ousmane Sonko dafa dupliquer bopam nak la dupliquer boppam nena na nit ñi dañoo jàpp ne Ousmane Sonko moom rek mo bëgg nekk candidat nit ñi jàppuñu ko. Ousmane Sonko moo taxaw ne moom rek kay candidat ñi mu àndal ne moom rek kay candidat yow Pape Moussa Sow nga ne moom rek kay candidat yow Pape Moussa Sow yow yaa war a njëkk a dellu si xeex dupliqué boobu yaa taxaw sans limite nga ne L57 moo ne Bassirou Diomaye Faye mënul nekk candidat ndaxte l dafa ne képp koo xamante ni maanaam euh, sa parti dañ ko dissoudre noo nekk candidat à la beneen parti investir yow Pape Moussa Sow yaa ko njëkk wax sénégalais yi L57. il sax bi Bassirou Diomaye Faye nekkee candidat taxawoo ci plateau yi nga ne conseil constitutionnel li mu def fan la ko teg ndax sa Bassirou Diomaye Faye mënul nekk candidat. Pape Moussa Sow ak sa ñaari bracelet yooyu tey dama dégg ni su dee da nga nee patriote nga bracelet vert jaune rouge ngay takk muy le Sénégal patriote mooy ku bëgg réewam mais bracelet MFDC nga takk.

les lu ngeen suba tegg ko je crois que vous êtes dans les plateaux uniquement pour parler accès à ay dof nee naa intelligent du Andak Ousmane Sonko ku muus du Andak Ousmane Sonko kuy xalaat du Andak Ousmane Sonko journaliste aussi bu si jël benn 10 minutes Ousmane Sonko su waxee nga jël minutes bul xool Ousmane Sonko vous nga teg ko nga le pour et le contre da ngay gis fen yu xep mais dañuy dem par émotion Ousmane Sonko dafa dem ba natt ñenn ci ay nit et militants ak yenn journalistes ci émotion je ne xaaral le temps le temps que may lijjanti beneen fenn ñoom danañ ci nekk di ci wax quelques des joueurs je ne pas Ousmane Sonko dama ne lu tax mënuma ko gëm man gëm Ousmane Sonko moo taar réew képp koo gis ngi Ousmane Sonko rek da ngay que Lat job a catégorique catégorie, nga bëgg la job nga gis Mbaye de la laa mel le illaa yow mi diina du ma la gëm maa liggéey xaw ma ko mosuma ko gis dama ko déglu démb dama xam ne que kii nitu dëgg la parce que nitu dëgg mooy yow nga nangu sa erreur nangu erreuru keneen ban jël gaal bi nga xamante ni yow doo ci lekk nga ciy yàqal sa morom mu ciy lekk kon yaakaar naa ni Pape Moussa Sow il est toujours dans son xam nga chroniqueur la ñu woon en tant que chroniqueur ñu war ko invité léegi yam site la ciblé Walfadjri sans limite léegi dem na ba créer site kan ko créé loo est-ce que pas Moussa Sow mën nañu wax lan mooy linkam ak Malick ture homme d'affaires bi dëkk cité góor gi ba léegi ñu ci tontu lan mooy linkam ak Malick ture samedi passé voilà ak lan moo doonoon linkam keroog bu muy am rendez-vous un mardi à 17h ak Amadou Ba. Amadou Ba Bokk Yaakaar est-ce que mën nañu wax loolu qu'est-ce que Pape Moussa Sow lan la doon lan la représente tey Ouleye Mané animatrice la du journaliste.

bu la dëgg réeré sa xarit Pape Moussa bu la dëgg réeré da ngay xool ki dem ba ñëw mhm. ndax man ku ne xam ne ne information jaral na ma lu ne jaral na ma sax pass yàq sama xaalis ñëw donte li ngay wax ñoruma waaye naa wax sénégalais yow yaay kan mhm. suñu fàttalikoo def naa ko fii ci docteur Babacar bi fi Ousmane Sonko dem set fii boog ah. mooy xale bu jigéen bi la ñuy monté mhm. muy coordonné ay invité man bu may woo dafa ne ma dama bëgg ñu waxtaan ci say affaire après ñu waxtaan ci réew mi ma ne ko d'accord. Uh-huh. mën nañu waxtaan ci man ak réew mi. bi mu ñëwee mu posé premier acte mooy dafa ma laaj ci affaire sama problème ak am Ahmed ma ne ko dossier la boo xam ne mu ngi ci loxo justice bis bu ci paree. Uh-huh. man maay toog en personne. Mm. wax ci la ma ca war a wax tëj ko seet leneen. mu ne ma noonu dañoo bëgg nga wax ma ñan ñoo nekk sa ginnaaw ndax amoo kersi gàcce ci ñoom ak combat bi ci regretté ma ne ko combat bi mu dugg ci Ousmane Sonko. am na lu ma ci regretté waaye am naa ci ndam mu ne ma lan ndam lañ koy man Ousmane Sonko ngi ci kaso bi déggatoo lacrymogène tàkk réew maa ngi dal loolu ndam la regretté mooy xam naa ci ay nit yoo xam ne waruma leen woon xam parce que ñoom problème personnel lañ am ak Ousmane Sonko man nag Ousmane Sonko réew mi la attaqué ma attaqué mu ne ma non waxoo dëkk ci biir émission bi. Mm. ne ma nan la attaqué réew mi ma ne ko du yow yaay wax dëgg la wala du dëgg. ndax doo juge. mu ne ma non juge bi na liñ ko jiiñ du dëgg ma ne ko. deuxi jugement bi ñeme woo ko publier sa scène bi ndax scène bi waa kër Ousmane Sonko ko fi bàyyee. ma ne ko heure boo ko publier ma jébbalu ci yow. Mm-hmm. mooy jugement bi ñu jugé Sweet Beauté. jugement bi boo ko publier fii ñu liir ko. ma jébbalu ci yow. ma pare émission bi ñu ne ma duñ ko teg. avant may génn. lañ ne ma ah duñ ko teg. ma ne leen lu tax du ngeen ko teg ñu ne ma li li nga waroon wax waxoo ko. ndax yow sa affaire dañ lay laaj ngay tontu Ousmane Sonko ma ne kon yéen site bi Ousmane Sonko ngeen ko fi bàyyil. te ñoom léegi kon yéen site bi daal fenal Macky ngeen ko fi tege. Mm. yàq deru Macky Sall yàq deru réew mi. ma ne leen nag benn bu ngeen ko tegul sénégalais yëpp dinañ xam yéen ay ñan parce que kon nekkalu leen fi réew mi yéen bëggu leen ko wax xam-xam ku wax lu leen neex ngeen bëgg. Mm. te man loolu du ko def. kenn du ma sàkkal li may wax sama kër laa toog woowuma la téléphone. aw mon sa numéro ya, ya pa musa moo wo sama way la dañuy partager lu bari motax munema Fatima ne da la soxla bu doon yaa ma wool mën naa seet neneen lu mais pa musa moo wo suma su émission par li ma gën a dama def émission par di wo pa musa jërul pour wax ko ñi liñ def ndeke pa musa mo seen goor waaw ah. ña ngay defal seen i enveloppe nag ñett ñaari jigéen waaw ñom ñett ña ngay defal seen i enveloppe ay Abdinaan ndjay ay yenn avocats yi ca ca saasi bi ma génnee Cheikh Gadiaga mu ngi pour la ñu jox leen xaalis pour waaw parce que ulay kër gi maamam fa la dëkk ah, ulay maane maamam ci kër gi la dëkk ulay moo fa aménagé benn néeg teg fa matelas suñ lay tourneel dañuy génne matelas bi indil la benn kii <laughs> parce que gis naa Ndiaye tey fa ma jóg tey def na fa benn <laughs> émission. dañuy génne matelas bi <laughs> boo xoolee kii bi site bi mu ngi tudd jotaayu justice xaw ma onze mille kii la am abonné am léegi nag dañoo bëgg site bi gën a jóg ñu nekk fa di fenal Macky Sall di yàq deru nit ñi yàq deru opposition bi Pape Ndiaye mi nga xam ne moo leen indi woon balance ah. bi may défendre Pape Ndiaye ci émission bi sax ñi ñi ngi naan ma déedéet nee naa leen Diop Taïf moo tooñ Pape Ndiaye ah. ndax Cheikh Gadiaga moo wax ci plateau bi ne Sonko ay wuyu la àndaloon ah. Pape waxul loolu bi Cheikh demee Diop ne Pape escroc la kon Diop a ko tooñ ñu ne ma non non nanguwuñ teg émission ba tax Pape Ndiaye nu ñu mel ñooñ bu ñu leen xamee Pape Ndiaye moo tax léegi créé nañ site bi pour lu Pape Ndiaye may alerte na wa senegal set gis na fa Ouleye Mané ah. nañ def très attention parce que amna na am ci famille victime yi ah. maa ngi koy top nak mooy wecceet bañ koy jox buguma man buguma di dem ci lu leeru famille victime yi nga xamné ñi ngi jor ci senu di jox journaliste xawma animatrice ma ngi top war naa xam ban animatrice naan motax may wax wa senegal set nañ jël seeni mesure jili mu ngi may dégg pam nga lay bu dangereux lañ hébergeuse ku dangereuse lañu héberger foofu. maanaam léegi dem ci famille victime jël seen xaalis. parce que après ñoo si toog xam nga ñooñu link la boo xam ne ñëpp ci soxlay Pastef la ñuy dox waa Pastef. parce que ñiñ jàpp dañoo bari. ku ci dem seen famille ma waxal la nga compal nga ñëw waxal ko te Sénégal set nag site bu mag la man xam naa ko du fa jóg te lii may wax fii dinaa dem ba Sénégal set wax ko fa. ndax sans limite ba ma remarqué na ñoom dañoo tourné seen lumière bëgg koo teg ci mbiri Pastef damaa dem ba toog ci plateau ba Ouzin invité ma wax ko man leen yéen télé bii Sonko ngeen di xëyal di gont booba laa fa gëj nag man leen yéen ci mbiri Sonko ngeen bëgg xëy di gont bëgg ñu koo forcé fallait que état jël ay matukaayam ci site internet yi ñuy créer di yàq deram di ko jaxaseeg àdduna di ko fenal di ko sosal te xale yi amuñu carte presse ay association malfaiteur lañ ñooñu. ay animateurs Pa Moussa mooy seen góor. <laughs> site bi jotaayu justice la tudd dama bëgg nag ñu jël ci seeni i madukaay teg ci seen i bët te nee naa Cheikh sa fukki dërëm nag bu mu ci dugg ndax xale heure bu ñu jommee woo la nga jàppale leen heure boo demee balaas yëkkati sa kii ba même waa Walfadjri bu ñu doon def seen kii yooyu dañ doon sollicité Cheikh Gadiaga bu yëkkati seen àll def ci nee naa ko nag sa dërëm bu mu dugg fii lii téléphone al Macky la. ndax bu ñu doon toon bu fekkoon journaliste moo leen tax a jóg. man suma ñëwé def sama émission mom luma ma fa wax man la engagé kan la ñu porté leen du xam nañ sama numéro. xam nañ fu ma dëkk buma difamé nit. nañ ne ko ah Abdou ngier la ñu woma man ma def lijjanti ju mais ñoo amuñu droit ma def émission paré ñu ne ma non duñ ko tek parce que wara wax ci Ousmane Sonko li té ba paré déplacer moom la yap réew am réew de bu toll né mak bu toll né man <laughs> juddu bu yag ñoom ñu juddu demb ñew bëgg dox sama maañ bëgg ma wax li ngay wax ndegam ndegam ñi ne ci pouvoir bi ñoo ma munta wax limay wax <laughs> waxuma la ak ay gone yu juddu démb man li ma war a wax maa koy désidé heure bi ma koy wax maa koy décider fa ma koy waxe maa koy décider du kenn bañ na ko ñi may invité plateau yëpp kenn mënu ma orienté man li ma bëgg a wax laay wax. beneen bi mooy boo créé chaîne jël ay nit di leen liggéeyloo da danga ko war a teg ci siraatal mustaqim maanaam seen ba nga créé la nga fay jëlee sa njaboot la jëm kon képp koo xam ne te yow amaana publicité bañ lay jox émission ba ngay defloo nit ki. boo jaarale wul publicité ba waaje du la fay da koy jàllale waa ji fay la kon boo waxanteeg nit nga ne ko da kaay ma liggéey la wala kaay ma def ak yow émission la ngeen waxante def ko mm-hmm. moo gën après ngay jël ay nit yoo xam ne da nga leen di ñëw utiliser parce que li may wax tamit ci seen confrère laa ko jëmale bi may wax ni maa ngi ko jëmale ci Saar Allemagne parce que Aïssatou Diop Fall doon na ko def ma mm-hmm. yónnee ko audio parce que bintu bi newoon fii ci temps temps témoin la mm-hmm. bintu fii la ma tàggu ne ma dama dem ci Aïssatou ma ne ko bul waaw si damay wax man télé laa ne ma ne ko bul dem. parce que Aysatu sinon ma ne ko wala booy dem na la defal contrat bu muy liggéey ak yow ba heure bu la dàqee fay la sa mu ne ma non jëru ko dem ma ne ko tee nga ma ne ko man damaa xam bintu ba mu demee fu mu mujjee. Aysatu <laughs> da koo dàq mu del si waat ca lay doog a nangu la ma ko waxoon. Aysatu ba mu fi naree jël penda bi bi bi nekk Sénégal set yëg naa ko man dama wax penda la waxam ma ne ko boo fa demee tamit. visibilité bi nga am Sénégal set accès bi nga fi am nii la lay penn ne man koy déew ma hmm. kon man bugguma injustice man mi ay si saar woo na ma fi ne ma kaay ñu liggéey par mardi ma ñëw defal ko mardi chronique ba pare wàcc def na ko ay yoon yoon yoo xam suma wàccee moom fay man xaalis sama problème ñaata nit dama invité déew ma ñaata nit dama invité ma paas sama xaalis dem pare du ma la laaj sax pass dem ñibbi parce que man réew mi moo ma ñor mais boo ne ma kaay ñu liggéey hmm. su ma ñëwee di liggéey ak yow la ma am mu néew mu bari jox ma rek ma dem. man am problème parce que sama waay la. mais su ma lay woo doo jël man man kenn mënu maa teree am naa waxukaay bugguma man injustice laa buggul. Aysatu bi ma remarqué loolu ci moom laa jël bi ma remarqué ba xam ne dàq na plus de dix personnes jëm quinze. ba kenn ki demoon na ci Aline Top ba mu ne day porte plainte Aline Top ndax kooku dafa dem def interview dama ko audio man man maa jël sama portable audio Aysatu Diop Fall. xamal ko ne lii du liggéey te lii ngay def jaru ko parce que sa daf ma engagé parce que Aïssatou day nit koo xam ne estime woon naa ko kon su ma gisee safaan boobu dama koy wax mais Sarr tamit loolu dama ko gis ci moom te bu ma sañoon da koy bàyyi su gisee nit bëgg ko invité na ko wax dama la invité na ko wax dama la invité su ko invité ñu waxtaan après dem mais nit ki bu ne ko kay ñu liggéey parce que dang ko bëgg invité tax nga nan ko kay ñu liggéey xam nga kay ñu liggéey mhm. engagement la diw kay ñu liggéey boo ko mu ñew respecter heure biñ ko wax mu ñew liggéey yow ba paré dem yëkkatil ñakam ko jox ko mhm. loolu du dara parce que da lay defaral ëlëk mhm. parce que sama genre bo ñu lebelee caay caay lim la mëna yakal mo upp lim lay defaral gis nga xalé yi déplacer ma sama kër ta paré bu ma ci ñom de paré bu ma ci ñom parce que xamna ni ñi yak yàq réew mi leen tax a parce que jigen lañ ko xamone moy jub jéem a jéem a roy ci jigéen ñu baax ñi fi nekk mais defoo ko. Mm-hmm. nekk ci àll bi lambar lambar taxawal jël xaalisu détenu yi di ko lekk di jëm seen boo leen provocaanal xam Pape Ndiaye xam na loolu xam na ne ñii boo ma leen yaatalee balance fii. Mm. bu yàggee ñu cokkal moo tax Pape def leen nii. léegi nag dañoo def association contre Pape Ndiaye maay alerté Walfadjri alerté Pape Ndiaye na ci jël ay matukaayam ci ñoom ci kawam lañ jëm. parce que booy passé fi lañ jël ñoom Diop di di bëgg a asarnewu ci kaw Pape gis nga keroog Diop fa la def live dinaa ci ñëwaat nag beneen yoon xam naa samedi bi di ñëw lay gën a tàng ci ñoom parce que dinaa gën a am ay éléments ci ñoom. <laughs> donc yaa ngi ci seen tànk.